di ndokkeel soppee almisbaax yépp yi ci biir réew mi ak yi nekk bitim réew yépp ñu ma koy faral di waxe soppe yi nga xam ne ñu ngi jàpp ci jotaay bi moo xam jàppuk soññee la ak ndokkeel moo xam jàppuk maanaa la jàpp yépp ñuy jàpp ci jotaay bi ñoo ngi leen di ñaanal suñ borom yokku leen a sàmm ndax léeg-léeg euh, mbir motivé la ba tax nga gën caa sawar ca nanga ko doon defee ndax yàlla moom moo ñu noonu nit te yàlla xam na ne léeg-léeg yitte ji ngeen jox jotaay bi ak ànd gi ngeen ci ànd ak ñun ak ni ñu yëgee ne am na mag ñu yeewu ci waxtu wi teg seeni rajo di ñu wéttali ko dana tax buñ baamoo benn bind ñaari yoon dañuy am kersa lool ci nit nañu maa ngi doon déglu baax ndax ni mbir yi tëddee tax ñoo ngi leen ci tuubalaat bu baax a baax te leen ko jéggalu tëddi leen ñaanal bu baax a baax di ndokkeelaat doomi soxna yi ni ma ko baaxoo waxee sédd nañ leen ab cër te boo ko waxee maa ngi ci jublu doomi daara yi rek ndax day mel ne léeg-léeg ñu nekk ñaar doomi soxna ak doomi daara ndax dana am koo xam ne danaan doomi soxna laa waaye yi daara am dara sëfu ko ci maanaam waxtaankatu diine moom du ko ndokkeel mën naa am du ko déglu du ko soññi te bu toogoon ci barab man koo yàq sax boo moytuwul loolu lay def kooku moom ku ko jur mën naa doon soxna su baax way juróom di sëriñ daara bu baax waaye nag moom daa mel ni programme am jëmut fa ñooñu jëmoon moo tax mag ñi indiwaat kon beneen baat muy baatu doomi daara léeg-léeg ñu wax ko moom day doon koo xam ne day dana xam li xew ci pénc mi ci njàng waaye itam dana bëgg ñi nga xamante ne dañuy taxaw taxawaay boobu yal yàlla fay leen ñuy taxaw ci taxawaay boobu yépp te ñoo ñu ñooy ñi fees dell ci soppi yi déglu baax am na ñu ma ci tàmbalim bañ miin ko ci sama làmmiñ te ñi ma tudd te ñu am wàccuwaay boobu ci jotaay bi ñoo ëpp fuuf yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru gàmm di weer wi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñoon te ñëwam <coughs> leeral penc mi ndax ak leer rek la ëndaale nuurun mu biinun Cheikh si daaji Malick si radiallahu anhu ba mu koy woy noonu la ko wooyee woon wax na nag indil nañu ak leer ata nuural mubiin dara taxu ko fee ñëw li irsaadil ibaadi jamian rabbi dafa ñëw rek ngir gindi jaam ñépp ba ñépp jub looloo ko fi indi nga xam ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg ko farata la waaw bëgg yonent bi farata la du sunna bëgg ko farata la suñ borom ñu ko digal bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam farata la ndax suñ borom moo ñu ko dugal moo ñu ko digal topp gim ñu digal ñu topp ko doon aw tagg ci moom woo xam ne tagg dootu ko féete kaw ndax danañu ku bëgg a jub topp ko wa in tutiuhu tahtadu ci te bul fàtte ne jub nga doon ñaan njub nga doon ñaan ci sa jaamu yàlla yu bari ba ngay jàng alxuraan ci julli ga ba nga kañee suñ borom bàkk ko tagg ko ne ko maliki yow mi diin tagg ko ne ko iyaaka naabudu tagg ko ne ko wa iyaaka nastain ndax yaa yeyoo ñaar yooyu waaye ba nga koy ñaan la nga ko wax mooy ihdina jubal ma jubal ma ak njub hudan rek jub xocc rek lay ñaan ndax ku dëng ñu jubbanti la te jubbanti bi daa metti te daa bari façon dam xaj na ci foxoj xaj na ci ñu yët la añ xaj na ci <laughs> waaw yët laañ mooy caabi féete ko ginnaaw la la wax ko te caabi moom boo féetee nit ginnaaw wóorut moo tax mu tëj sa buntu bàyyi caabi ci ginnaaw ñu la sa waaye li nga def wóorut de buñ la ko defee nag te ñëw koo bañ mu gën a tee wóora di gën a metteeti yal na yàlla defal tawféex ña fa nekk ñëpp ndeysaan te ca biir am ñu baax nag am ñu baax ñoo xam ne njuumte moo leen fa yóbbu léeg-léeg toog ci keram di di ko yedd te fekk def na njuumte lu raw lim def waaye taw féexi suñ borooma la bàyyi ci péex mi moom nattu baa wàcc ci moom moo ko dugal ca biir yàlla xam na ko léeg nag ak càggante yóbbu fa nit gannaaw ba ko suñ borom dogalee ci moom waaye bu toppee tànk ba rek mu dugg fu warut bu toppee tànk ba mu dugg fu wax naa ko ci gàmmu Ali Imran gi yal yàlla fay leen ne ñun dañuy def ku lu metti loolu dal ñu ne la muñal ndax yonent yàlla fa duggoon na kaso wala ñun la nangam daloon na yonent bi ma ne ñooñu dañoo tegoon seen tànk fi ñu war a nekk yooyu yëpp daan leen fa fekk di leen dal moo tax ñu ko daan muñ moo tax mu nekkoon yokkute ci ñoom ndax Yuusuf moo jël engagement ne suñu borom as sijnu ahabbu ilayya ahabbu ilayya mimmaa yad'uunanii ilayhi mhm. dugg ci kaso bi moo ma gën a provocation yi may def ma di ci dugg waaw allahu akbar allahu akbar def luy yàq samay jikko dugg ci kaso bi ma ko gënal parce que gëm naa ne dugg fa taxul samay jikko yàqu kooku engagement la kon boo xam ne moo ko jël ki ne ci lu yàq jikko bañ fekk ko fa dugal ko fa ngir defaree jikkoom nag ñaar yi wuute na waaye nag dañ koy wax ngir dalal xelam alayhi salaatu wasalaam ñëw kon ngir niteel ñu ba ñu nitee mu réussir ko nag ndax suñ boroom dafa bind nit gënal ko ci lim bind waaye doomu aadama am ci ku sàggan ba wàccee baar bi baar boobu nag suñ boroom bañ mu wàcc muy tànn ci biir nit ñi ay yonent di leen yónni tàmbuleel ci yonent yàlla noox lam daj ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mii seen patron tañ ko doon xàllal géew bi bi mu ñëwee lim daj te loolu yépp bëgg nit nite doo nga tax moo tax ginnaaw bëgg ko farata la ni ma ko waxee moom yonent bi sallallahu alayhi wa topp ko farata la kon xam ko day nekk farata ndax nit bëgg ko mu xamut mën na koo jafe hmm. bëgg koo xamut olof am na baat bu mu ci wax moo tax dañ koo war a xam ndeysaan ba buñ ne Muhammad ñu am luñ yëg ndax ku ko xam ku ne boo diggee turam wa day am looy yëg ndeysaan am na ci kenn ci nit ñu baax ñëwoon démb buñ a wax Muhammad day jël loxoom taf ko ci dënn bi bës ko ba mu dëgër fi xol bi toll mu door a wax sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na bu ñu tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam xolam bi day tëf tëfi ba mel ni luy bëgg a génn ndax bëgg gum bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xol bi day fippu day mel ni buum yi ko téye day bëgg a dagg waaw ndax tiit ndax tiit gis nga laa ilaha illallah maanaam da koy bëgg ba doo ko bëgg tudd tur wi direct waaw da koy bëgg ba doo ko bëgg tudd tur wi direct ndax danga koy wormaal waaw da nga koy wekk waaye ñun Muhammad Muhammad Muhammad yu mel ne taw waaw te bëgg ko taxut wa waaye euh, euh, euh, bu yàggee slogan lay doon maanaam lu xew lay doon nga di ko wax comme ñëpp waaye nekkul ne ay jeexital lay def yuy tax nga di ko wax sallallahu alayhi wa moo tax suñ borom mi nga xam ne dafa bëgg yonent bi alayhi salaam boo demee ci alquranul karim téeméeri saar ak fukki saar ñeent ay aaya yu xam ne lim ba bari na lool te moom la doon waxal te ñeenti yoon la jaar ci turam ñeenti yoon képp képp képp la yàlla jaar ci turam jëxëran muy turu Muhammad wi ya ca def yépp da ko wuti dàkkantal ndax bëgg ko yaa ayyuhan nabiyyu isaan yaa ayyuhar rasul maanaam loolu li muy tegtale kenn xamul nu mu toll waxoon naa ko soxna ca suñ daara ja ca baax ne ñun ñii ci penc mi rek ku ci bëgg nit ba mu ëpp léeg-léeg dootoo ko wooyew turam da nga koy dàkkantal di ko wooye turu yi wane ne bëgg nga ko bu dee jëkkër ak boroom këram nga xam ne bëgganteeg nobel la day am nu ñuy woowantee mhm. bu dee ñi ci pénc mi nga xam ne diggante nit la akub sëriñam ci wàllu bëggeel day am nu mu koy wooyee lu ñëw rek jaar ca turwa waaw ñëw rek jaar ca turwa waaye dana wax seex bi ku baax ki léeg mun ne ko yaaram wala mu koy wooyee sang bi wala mu naan ku tedd ki waaw maanaam xeeti turu wu ne dana ko ko wooyee ndax lan daf koo wekk sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom moo moom moo moom mooy seefu seef yi waaw mooy seefu seef yi waaw xul xaddamaahu fawxa kulli rusuli waaw nga xamante ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñoom ñëpp yonent bi teg na ay tànkam ci seeni mbagg di wéy koo fi dégg ñu wax la ak njàmbaareem ak wàccuwaay ba mu def ak la mu def ci lislaam ba mu yuqante koo fa mu yamal boppam day téen dóor seen yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na dem na bu yàgg waaw alaaji bu saaxu nee na suñ borom dafa dajale yonent yépp ab course ñu dawal yonent bi jël pee ndeysaan trois wala boog fa xakkadun waaw téeméeri junni ak fukki ñeent ñoom ñëpp yonent bi jël pee waaw ñu dawalaat ñetti téeméer ak nangam yonent bi jël pee ñu dawal ñaar fukk ak juróom yonent bi jël pee ñu dawal juróomi yonent yonent bi jël pee suñ borom ne ko nag ñiidoo seen moroom yaa leen gën te ku bëgg a baax day mel ne yow te ku la gën a nuru moo gën a baax ñëpp kon nuru yonent bi alayhi salaatu wasalaam am xëy la mu nit war a xëy maanaam sama programme tey mooy nan laay nuroo yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga génnee dajeeg nit nuyuwu la wala nit def la lu metti bala ngaa fayu ah man de kii li ma def xam ma lu ciy pexe pexe mi mooy fàttalikul ndax mas nañ koo def yonent bi alayhi salaatu wasalaam am déet ñu ne laa ah mas nañ ko koo def kay ndax moom waxuma la ñàkk nuyu waaye dëkkoon naa soxna soo xam ne waasin tuuri jën yëpp buntu këram la koy tuur bopp jën yaag euh, raxasin maag euh, suqiitum ganaar yaag yëpp buntu këram la koy tuur ak bopp yaag yeel ya waaye gis nga tiñ ne la roy ko te nga nuru ko ba mu toogee ñetti fan gisut benn salte buntu këram te ndaw see ko fi daan def newut ah ndax yàlla ma féex tey dane ah, naa ko seeti ba xam lan moo ko téye ba salte bi mu doon def defatu ko waaw mu ñëw fekk ko mu tëdd feebar mu seet si ko massa maa ngi lay massawu feebar bi man kat sax xaw tuuti kon du ma yëg sa feebar bi waaye yi nga daan def laa gis ne defatoo ko ma lay xool si ba xam lan moo la téye baa jàmm la ba defatoo ko waaw seet kooku ma lay wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkee waa ji dalaa def lu metti ndax danga koy baal wala déet boo ko fàttalikoo te bëgg koo roy te bëgg koo nuru nga tàmbulee jàng baale dafa tëdd di nelaw waa ji fekk ko yor jaasi tiim ko yonent bi ne bërét waa ji ne ko Muhammad kan moo mën a dox sama diggante ak yow ba duma la rey tey laa lay rey coow li jeex waaw tey laa lay rey lépp féete boor mu jeex tàkk yonent bi ne ko yàlla waa ji yonent bi ca xëy ba ca caractère ba ak mat ni ko ne yàlla waa ji tiit ba jaasi ji wadd yonent bi jël jaasi ji léegi nag féete waa ji fi mu féete woon waa ji ne waa ji kan moo mën a dox sama diggante yow waa ji ne ko kenn yonent bi delloo ko jaasi ji jàpp ci catu jaasi ji delloo ko ponk ba na ko am baal naa la doxal seet yow nag waa ji li ma doon bëgg a def comme jekku naa ko duma ko baal ab jullit du def noonu da ngay wane toujours jikko yi jullit am bu ko defee ñu xemmeem lislaam gis nga daawa du ñu tànt rek jox la micro ngay wax ak waa ji di waaraate ak di woote rek ñu ne kii ab kat la waaye jikko yi nit ki dafa bokk ci jikko yi muy wootee waaw jikko yi nga xamante ne da ciy wootee jikko yi nga xam da ciy liggéeyal lislaam day tax ñu fonk lislaam day tax ñu naw lislaam loolu histoire biñ ciy nettali dafa am benn saxaaba dafa tardé mën ngaa wax ñaar wala ñetti yoon yoo xam ne bu julli si suba ràkk bu njëkk da koy raw wala ñaari walla bokk euh, kàbbaru armal mu def ko ñetti yoon saaba yi waxtaan ak moom nag ne ko ah, sa waa yow lu xew dañoo gis ne ràkk bu njëkk bi dalay raw ndax ñun sax ñoo ngi waxtaan ak ñi ñu dëkkal waaw dëkk ak nit ngeen bokk nekk ay jullit waaye ñemewoo ko soññ yow ci julli suba ne ko ah, sa waa man du la gis ngay dem jàkka xam naa sa réveil bi moo baaxul su ma yeewootee yàlla ñu ànd laa ilaha illallah ko waxee dangaa loo may waare sa yoon dafa nekk ci sama julli nga xam ne ñun dañoo jàpp ne ay jullit lañ waaye kenn ku nekk daa war a maandu ci moroomam maandu du ko soññi ci lu baax du ko soññ ci lu baax nga gis ko muy def lu lislaam araamal ngeen bokk nekk waaye melokaan bi tax na amoo sañ-sañu ne ko ah man ka lii ma gis nga di ko def lislaam da koy bañ ndax nangam ak nangam xam naa boo ko bàyyi woon dina baax looloo gën may ko milliard xamoo ne loolu moo gën may nit ki milliard ki ñëw fekk nit mu toog di naan di naane càmmooñam mu ne ko ah, sama waa ji waa yow sa càmmoñ ngay naane lii moom lislaam da koo tere wax ko ko ci ton bu tax mu bàyyi ko ba mu bàyyi ko moo gën nga may ko milliard bi sub keroog yàlla xam na ko am sab xarit bëgg ko lool ngeen nekk dëkkandoo bu feebaroon nga dem nga jóge fii ngeen def délégation dem ba cël maxambaakool seeti ko boo amee ngénte ngeen déparé fii dem ba ndokkeel ko ndax lan dangay rafetal seeni relation yéen ñaar danga koo bëgg waaye man ngeen a bokk bureau bi waxtu julli jot ngeen jóg julli ji mu continuer di tàppe lim doon tàppe wala mu jaaxaan yorub téléphone am comme da ngeen a pause tëdd di xaar wala mu ne ma dem bërëb sàngam te ñëw mu wóor la ne moom wut waaye du ngeen wax jëm ci lu ci jëm sociale ni mu amee ci entreprise bi noonu la waroon a am nag socialu diine waaw socialu diine sociale boo xam ne léeg ñu ànd woo kenn mu ñëw toog ñu waxtaan ak moom nag waaw waxtaan ak moom ne ko nangam ak nangam kat euh, lislaam da koo mel ne da koo desal ginnaaw. te mu baree bari lool ñoo xam ne dañ koy def ñuy bañ nga bokk ci wax ak moom ci anam nga ñu mën a waxee moom ba mu baax loolu ci laayante biir la bokk saxaaba yi moom dañ doon def loolu waaw dañ doon def loolu nag mën ngaa dëkk ak nit ci quartier bi waxuma la mu tardé benn rakka kàbbaru armal waaye foofa moom du ngeen fa daje léeg këram la koy dóore mu daanu léeg-léeg ko mu daanu te même bu nee la sama kër laay jullee jullee ci kër gi du lay waaw jullee ci kër gi du lay te ñun réew mi banalisé nañ ko waaw ndax dafa am Euh, léeg-léeg nit jàpp ne kilifa laa moo tax duma dem jumaa wala duma dem jàkk ji julli ji jàkk dana ne ci koñ bi doo fa dajee kilifa mukk léeg-léeg sax kilifa gee tabax jàkk ji nañ ma baal mooy tabax jàkk ji ci mpéncam ñu ne ah moom ka tabax na jàkk waaye nag da koo tabaxal gaa yi waaye moom àgg na ci yàlla foo xam ne waratu jaxasoo gaa yi fu ñu jullee ab tàppeem lay lal biir néegam julli julleem jàpp njàmburam man xuma quota boobu kañ la ko nit am ci yàlla te yonent bi alayhi salaatu wasalaam doonoon patron nit ñi tawat bay diri ay tànkam ñu lëngu ko mu ñëw di julli si silmaxa dëkk ci bërëb sàngam yonent bi alayhi salaatu ne ko boo déggee nodd gi na nga ñëw wallaahi maam Ceerno Birahim fii ci Daarul Muxti dañoo dem ba waxtu gee am ku génn àdduna ñu koy yuuxoo jooy ya metti lool maam Ceerno yónni ne nañ ko xoolale lu xew ah ñooñ de seen yuuxu yi metti na ñu ñëw ne ko diwkat moo génn àdduna moom la ay mbokkam jaaxle bay jooy nday saan ndax yërëm ko ak deeganam méttee mun leen damaa yaakaaroon ne sax dañoo am dëkkandoo bu julliwut gee waaw dañoo yaaka damaa yaakaaroon ne dañoo amoon dëkkandoo bu julliwut gee moo tax ñuy jooy jooy yooyu te nga xam ne ci jàkkaam ja bu masaana toog ñaari fan ñetti fan ñeent yoo xam ne gisu la nga julli si day yónnee ñu seeti la buñ la seetee bu fekkee ngànt taxut tawatoo amoo lenn ngànt mun la simple say néeg ndax ñun duñ dëkk ak ku dul julli si allahu akbar Seex Sidaaji Maalik Si mii radiallahu anhu woote gàmmu moom maam rawaan wax nañ ne toog nañ ne ca masala ya déglul ci lu baax lañ nekk de ci masala yi lañ nekk di lijjantee ka ràbba taalif ñu nodd ca jàkk ja ñu ne ca lañ nekkoon ba kàbbaru armar ba raw leen Oustaz Alioune Sall nee na Seex Sidaaji Maalik da ko ne nañu moytu di raw ay buum ba sëllee nàmp ndax njàng meeg masala yi raw ay buum yu ñu yeewee sëll wii di ak jaamu yàlla la ba man cee ratt ay tiyaaba kon nag sëgg ca sëgg sëgg sëgg ba tiyaaba yi jullik farataak kàbbar baak jullik mbooloo raw ñu ëpp naa def léegi lu tax nag ñun ñi fi des waaw ñun ñi fi des lu tax ñun nag jàkka yi moom du suñu jëmukaay sëriñ su baree bari nag nañ ma baal samay kilifa ngeen bind bee duggati ci kër gi rek <laughs> kenn ci njaboot gi wax ko waaw dajeeg ñun ci jàkka ji jafe te nag fuñ fu ñu fu ñu toll nag lal ab der bu rëy ci néeg bi ne ñun ay jaamukat yàlla lañu waaye jaamu yàlla gi ci néeg bi lañ koy defee te yonent bi nekkoon suñ patron moom ne woon nañu jullee ji ci jàkk ja waa ji mën naa tabax jàkka mën naa financé yépp waaye moom doo ko fa fiir boo koy nëbbutu doo ko fa gis waaw su ma waxee loolu dama laa indil démb indil la ñu bari ñoo xam ne taxawaay boobu lañ amoon am na ba léegi ñoo am taxawaay boobu waaye ñi amul taxawaay bee tax may wax kon ku ko am rek euh, dogal nga ngànt jotaay bi ñoo ngi lay jaajëfal tey ñaan suñ borom saxal la ci te gën koo tasaare mu nekk am njàng am na sax nettali bu xoromu bu ñuy nettali ci sëriñ Abdul Xaadir dañu wax ne waa ji dafa ñëw di ko siyaar si yàgg fa lool ñu ne ko sëñ bi ubbeegul waaye bi mu demee ba toll ci fenêtre bi tollook moom rek dafa nodd ndax xam na ne sëñ Abdul Xaadir bu déggee nodd rek ubbi waaw waa ji àgg ca fenêtre ba rek dar nopp ya daal di noddu allahu akbar waaye nag yoor yoor bu dëgër la ko def kenn xamul woon waxtu lay noddal waaye ba mu ne allahu akbar rek sëñ Abdou Khadre daaw bi fenêtre ba génnee génne loxo ba ne ko jotagut jotagut jotagut de nga xam ne maanaam moom jaamu yàlla gi moom bu jotee day bàyyi lam jàppoon lépp te itam mi ngi ciy bàyyi xel bu baax loolu li muy teg tegtale mooy kon soññeente ci lu baax am na solo dimbali nit ba mu bëgg yonent bi am na solo waa jooju may wax bi mu ñëwee nga xamante ne tardé na ay. Euh, tardé na ab rakka wala kàbbaru armal saxaaba yi laaj ko lu xew mun leen dafa am sama dëkkandoo yahud bu ma dëkkal pour ñu xam ne woote ci lislaam du ñëw leen ak def leen waaye ci jikkooy nit ak comportement wam ak doxalinam day tax ki dut ab jullit sax xemmeem jullit day tax sa moroomum jullit mi baaxul woon sax baax gis nga ki dëkk ak nit ki ci kër gi te lu tilim mu fomp ko xàmmeewut buntu néegam ak buntu nekkim dëkkal lu ne ci mbedd mi mu àndale ko bu ñëwee ci bitig bi kam fekk muy jënd mu topp ci gannaawam ku mën dimbali dimbali la doon ku yiw di yóbbaale waate rafetal ay jikkoom rafetal ak kanamam di muuñ nit ñi day tax nit ñi bëgg ko buñ ko bëggee bëgg programme bi ko mooñ bam mel noonu dangay gis ñu tàmbali koo roy ci li muy def ndax loolu lu baax la kon jikko yaa tax waa ji bi ko saxaaba yi laajee lu tax mu leen damaa dëkk ak ab yahut boo xam ne garabu tàndarmaam gi dafa sax ci këram waaye car yi dafa tiim sama kër dafa ñor nag fan yi tàndarma ji day wadd sama biir kër te bëgguma samay doom yeewu for ko di ko lekk xam nga mbirum xale la te waa ji mayuma ko bu boobaa àq la te damay bañ samay doom lekk lu lewut laa ilaha illallah te car yi këram la tiim waaye nee na waxtaanuma ceeg moom moo tax dama bëgg samay doom lekk ko moo tax damay for doom yi jëlaat ko ci këram bu ma yeewoo damay teel a yeewu trois heures gaaw for doom yi wadd ci guddi gi yépp jël ko këram moom kër waa ji door a julli si moo tax ñaari fan yi nag li wadd xaw a bari ndax ngelaw li ba ma tardé kabbaru armal bi wala ma tardé ràkk bu njëkk bi laa ilaha illallah ah, gaa yi ñëw nag ca yahud ba ne ko nañ jëm jéem a waxtaan ak moom trouver solution bu ñu la jàppalee ba dootoo tardé ràkk bi ba dootoo tardé kabbaru armal bi biñ ñëwee waxtaan ak moom ci ne ko dañoo bëggoon nga jaay ñu sa tàndarma gi wala nga jaay ñu sa mango gi boo ci wax baax na mu bañ ne leen jaayut <laughs> prix bu ne waaye nag lu jaayut kenn mënu koo jënd dañoo bëggoon nga jaay ñu xaaj bi car yi nga xam ne moo tiim kër sa waay lañ bëggoon nga jaay ñu ko lu xew doom yi ciy wadde lay bañ ay doomam lekk ko ndax mayoo ko ko ñu bëggoon nga jaay ko ko walla nga may ko ko bu ko defee bu waddatee mu bañ a dox digganteem ak mu jaamu si yàlla ndax di ko for te for gi di jaamu yàlla ndax day fegal njabootam lu baaxut waaye ca waxtaan waa doxalin wa ca la yahóot ba ne leen seen diine jii ngeen di woote dëgg la ndax diine joo xam ne bañ a lekk lu araam jaral na nit ki coono bi kiy daj ci garab gu tiim këram tam sañ ko diine jooju dëgg la allahu akbar nga xam ne kon ki ne ab jullit laa nekk keneen ku ne ci leneen daa war bi set mu ne ko ah, yow kat sa diine ji dëgg la ndax kat sa diine ji ginnaaw moo tax doo def lii sa diine ji dëgg la waaw waaye man mi nekk ab jullit eh, sol sama jàllaa bi dend ak keneen mu sol leneen te moom du ab jullit boo muy moom moo gën comportement damay sàggan yàq deru diine ba dañ manaan ah yow kay sawaay seen diine ji moom mi ngi noonu rek kii kay eh, nga xam ne kenn xamul lan la waaw wax naa ne portable day réer ñu for ko joxe ko am ku leen yii ku ko for xanaa kan la nga ne ko diw tudd mu ne bu doon jullit doo ci jot de ay waa ji aw xas mënta weesu loolu hmm? wax nit ki ne ko bu doon jullit doo ci jot cest à li tax nga jot ci mooy li mu nekkut jullit ndax jullit yi seen jikko yi dafa yàqu baaxatuñ te moom mu waroon a yor appareil bi nga xam ne mooy defar penc mi ci fànn yépp kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi dañ koy xam dañ koy xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy bëgg. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy roy yii yëpp nag jàng jikkoom yi ba xam ko dafa bokk ci li ñuy dimbali ngir ñu def ko moo tax buñ ñu woowee ci gàmm woo ñu ci daje di waxtaane jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak buñ ñu ci woowut yittee nit la ngir mu jàng ko ngir mu xam ko ngir mu man koo roy Amina ko jur ak Abdallah baax na lool bind la bu doon bind ma ne mokk na waaye nag nan la doon doxale ci pénc mi digganteem ak ci soxnaam digganteem ak ndaw ñi yonent bi digganteem ak mag ñi yonent bi digganteem ak jigéen ñi yonent bi digganteem ak société bi ci boppam message bi ko yàlla yónni woon lan la ko jaral ba message boobu jàll loolu bind la boo xam ne nafar ko mësta dañ di jot waaye jotati na moom lañ doon junj noonu ak di ko joxoñ yal yàlla sàmm leen te sàmmuñu sàmm mbokk yi nga xam ne ñooy waaj a taxawee gàmmu yi ci àdduna bi yépp rawatina ci biir réew mi rawatina suñ mbokk yi dëkk Tiwaawoon ak li ko wër suñ borom kàttanal leen defal ñu ñu am ndab lu taataan kàddu yu rafet ya fay war a bàyyi ko taataan ko ci njàngalem yonent bi taataan ko ci njàngalem Seex Sidaaji Malik ak mboole mag ñi nga xam ne wax nañu yonent bi lañ ko wax mbokk yi jaajëfal nañ leen bu baax a baax jaajëfal Oustaz Alioune sàll bu baax mi mi ngi nii di egg si moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subxanahu mu sàmm ko te sàmm ñu. ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna te defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.